أحمد جملة البرايا أحمد مدى بذا القديم أحمد رب الإله والنبي أحمد وسيلتي له وإني أحمد moo jël li ñaari guddi yi nga xam ni guddi yu symbole la ci lislaam te mooy guddi tay gii gi guddi gi ñu dëgmal te muy laylatul xadr xam ni ci lañ wax ni ci la alxuraan wàcc xam ni loolu li muy misaal mooy nubuwa waaye tamit laylatul isra wal mi'raj nga xam ni yónnante bi dafa yéeg loolu li muy misaal mooy wilaaya kon loolu lu am cëslaay la ci lislaam waaye tamit ci li nga xam ni mooy culture bi nga xam ni mooy culture ñu waa waa tasawuf doo liiree téere ñu bari ci gaay yàlla yi lu mel ni Cheikh Mahdi Ibn Arabi ak Cheikhul Akbar téeram bi tudd Kitab al Isra mu ngi ci misaal doxam boobu mu def jëm ci suñu borom doo jàngee xasiday Jalaalu diir Ruumi da nga dégg muy misaal doxam googu jëm ci suñu borom bay wax ni ba ma doonee aalim borom xam-xam kase dama ni woon dama siiw dama siiw dama dama siiw ni defar nit ñi waaye nag ba ma doonee aarif sama bopp moo ma doy maanaam loolu conscience bi nga xam ni dox googu da koy jur xam-xam yooyu muy jur ci yow ba nga xam ni da ngay xam lu xam ni ñiy jëm ci téere kase xamuñu ko maanaam loolu mën nañ ko tuddee ay maqaama maanaam ay degré ay station ay taxawaay taxawaay yooyu nag sëriñ bi da daan wax ni képp ko xam ni daf may jàngat di ma jàngatee ci lub maanaam ci maanaam ci giseen gi nga xam ni moom la ñu njëkk ña doon gisee te mooy école Bagdad bi kooku mooy ki ma gën a réere kon day mel ni sëriñ bi ñu koy jàngat di jàngat doxam boobu jëm ci suñu borom ak taxawaay yam ca am ci ay maqaamaat maanaam faw ñu utaat beneen méthodologie méthodologie boobu nag moom la ñu sëriñ Mouhamadou Moustapha Diop Alkooki indil muy lecture bu bees tàq bu xam ni balaa nga koo dégg da ngaa ñëw ci moom loolu nag incha allah moom lañ fas yéene taataan di ko teewlu bu baax a baax sëriñ bi du tënkee waxtaan bi dina am ay laaj ak i tontu comme ni ko sëñ Sam waxee waaye tamit dina am ay taxaw yu xam ni ay commentaire lañ ko mën a tuddee ndax sax commentaire waxi sëñ bi sax lu jafe la waaye dinañ ko jéem a dégg déggulu ndax ay dongaam lañ ndax ndongo moom fexe dégg déggulu sëriñam mooy mooy mooy mooy jàmbaar ci moom kon inspecteur Alioune Sarr dina ci def ay ay ay ay taxaw incha allah kon ñoo ngi sàkku ci mbokk yëpp ñu teewlu waxtaan bi incha allah.
kon kon kon ñu ngi leen di ñaanal suñu borom tegg nattu ba wa antumul a'law na de suñu borom soxla leen ko soxla leen ko kon de xam naa kon ñu ngi ci waajal leedu xadar leedu xadar gi nag bu dee guddi gii la moom rek guddi gii mën naa am la mën naa am. Cheikh Ahmad Tidiane Chérif adasallahu sirra donc mas nañu yëngu mu laaj doon ñu ne ko de dañuy fooglu lay du xadar mu ne ba leen buñ ci àggee daal ñu ko wax bañ ci àggee mu wax ko donga ñu dundal ko ñëpp nag fàtte ko lo ko kimtaan la lu mel noonu dal na dal na waa njëriñ si sëñ bi sëñ Dame Diop nee naa ñu yëngu sëñ bi ne doon doon ñu ne ko ñu ne ko dañuy fuglu leen xatam mu ne bale bu ñu ci àggee daal leen ko wax ñu àgg ca mu sëñ bi ne ne guddi yi la mu mu jàll ñëpp fàtte ko loolu xam moom moo ci dëgg la am mbooloo lu ñu dund guddi guñ lu muy dund ba ba ba ba mu jàll xamatuñ ñaata fan la kon li si xamante ne li ko daloon daal na sëñ bi kon kon kat day day dëccu yàlla boo xam ne du ko xam doo xamee fàtte kon waxtaan wi ñu ngi ko bëgg a waxtaanee ci parcours Sëñ Tuubaa parcours mystique bi parcours mystique bi am na nag am na maanaa thème bi waxuma waxtaan thème bi am na maanaa ndax benn xale ca Turquie ñëw na fa ne ma doon def teesal ma xaw ma ban la ko ban dëgër la teesal loolu peut être wax wala waaye ba ne ko da nga bëgg nga daal bindal ñu ci sëñ Tuuba ci Ahmadu Bamba nekkat mu asifu tariqa la à vingt aw kooku nag parcours am nii lay doon ñeer mu am niveau égal cinquante aw yoon nii lay mel jox ko parcours sema nee na wër naa ko ci téere sàngam sàngam sàngam gisuma ko mu ne awam da ci laa ko fekk ne waaw loolu lu tax baa na loolu ko yaakaar naa ci moom de benn ñaari paas la ak ak tuuti te maa ngi ko bind ay at ah loolu xam nga ko noonu la facteur la loolu moo war a dal ci lépp yow mi dégg question bi yow yow mi dégg ne am na question bi dina jamono posé na question c'est toi posé na question sama parcours anam yow mi ko dégg yow question bi. am taw fexe man koo tontu jago man man booba musuma cosaan boobu kenn kii ndax xam naa ne li may question bi ma yëg gisuma ko fenn koo ko waxee man naam daanaka bari wax la waaye am njëriñ ma ne ma bëgg moom rek man di ko topp yàlla ma dégg xisi sàngam ma ma teewal boo xam ne kon foofu kon nangam bis bis sàngam bara di not bam bamu àgg ginnaaw bi sax amaa na ci yeneen yu fay ñaar léegi misaal tey xale boobu tëjee alhamdulilah li mu ci andi ak su néew booba su ko amutoon kon léegi tey seen bëgg maa jàpp kon sëñ bi doon kon sëñ bi xam nga tari bi daa métti tari métti loolu gi moom ci lu maanaam wër gi nga waxee ne pensée la xalaatiin la wax dëgg yàlla moom tarikat yi bi ne suñu mbokki fu fukkahaa yi ñoom ñooñu sonal tari tari tari tari tari tari boo xam ne di yàlla xam nga fiq moom ba muy fëgg mu moom baaxoon na dégg comprendre dara li nga comprendre rek moo koy wax waaye fiq léegi mooy tari mu te ni dañuy mokkal xalil bay mokkal salaal xalil moom gis na wala hein Cheikh Ba ñoo ne ñu posé question léegi ndax bara atul ixtira mooy xaw ma lan ko invité rek jaay ko marque de yooyu ndax dagan na mu ne déet dagan na xam nga xam nga moom loolu loolu moom de lu ñu mënta la bëri ko da nga moom booba ca jamono yi ba daaw wax te kaw ga ñoom xamuñu lu may ma lam rek ko loolu jaay tegloo ko lam rek ko ñu ne loolu baaxul ma ma ma toog diw sàngam ma ne ko ma ne ko diw góor gi xam-xam yoon bi màggat na loolu ay milliards la mën a génne loolu loolu bokkul ak ab saako ceeb góor gi moom saako ceeb la xam oh ma ne ko kii xam nga màggat na jàmbaar la ceeb baax waaye màggat na suñu waaw léegi nag léegi gi nag ñun ba tey ñun fukkaay ñoo ñoo ñoo occupé lépp pour bi waaw loolu loolu ñu loolu kilifa yi xam naa war nañ koo xam loolu dañuy tax a taxaw ndax ñun ñun ñu bëri ñu toll nii taxaw waaye nag for dañuy for gën a magan waaw moo tax kon moom xam naa nag sama classe gi nag daa yàttuwut ci biir yoon wi ku boole théologie boole philosophie boole tasawuf boole boole boole yu bëri yooyu xam-xam yu bëri yi doo boole ko ah daa bëriwul nag moom sama classe bi bëriwul. waaw maanaam daal koo xam ne li spécialisé mooy xalaat xalaat nu ñuy xalaat la jàng jàngul moom mi ngi daj kooku moom bëriwul boo tuddee boo ma tuddee tudd Galaye Ndiaye tudd Saliou Salam ah xanaa cew naa jàng xaari jàng ni xaari jàng ni mu may ñëw dafa xaari di jàng jàng moom moom bilingue la moom fi ñu toll téere bi nga waxati alhamda war na ci bind moom waaw moo Babacar Dramé ñoo ci liggéey liggéey bu bu mucc ay wax sonn ci loolu def ci yitte nag yitte xam naa ne ba Babacar Ngom nag yéen kon ah yéen ne kon nag seen seen gars yi ñu ngi leen di jëlee waaw kon kon parcours mystique bu seen Tuubaa dañ bëgg a waxtaan loolu am na benn ci xale benn xale waaw am ma jël la ñu ngi tudd ma jëlatul fatul ci xafaar Maroc lay kii docteur Bamba Dramé moo koy kii moo ko jiite xale bi bu jàmbar waay ci ñu wax Modou Faye bàyyi si fii si kii doctorat jaana France bi dëkk ak dëggaa yi ku ñu tudd Adam ñoom seen yeeg ak jëjite almahrib da dafa développé sama thèse bi nii waaw loolu la ñu ko jël développé ko développement bu am solo donte ne du ñàkk mu amaat yeneen xalaat ci li bind am na ci tuuti ndax xam naa daa am lu mu tëjee di moo tax waaw man nag xam nga révolutionnaire laa moom moo tax moom man man damaa jéggi ku ne nag waaw waaw damay jéem a sus fii ya dara lu ñu dëgg la ma nangu ne ah ah est-ce que waaye nag suus naa substitué ba xam wala nga substitué na yow wala nga substitué keneen ak dëgg la substitution bi substitution bi mën naa métti ci yow waaye jubluwuma ci lu may xam nga mën naa am sax daa am loo leen doon mën naa am ñu substitué mën naa am ñu nga dindi waaye laa man léegi ma ma ma wóor li ma wax loolu kon moom kon yaakaar naa kon liñ jublu ci parcours bi def su ko dañoo bëgg étape bu nekk ci Sëñ Tuubaa étape ñu jaar ñu xool jamono jooju jaww ja épaissement ba ni ko monsieur Foucault di di waxee ak booba maanaam étape ba nan nan la ko sëñ bi toggee bab ñor ak su boobaa nu ñuy gisee xalaat yi ñu yeeg ak xalaat yeeg yooyu naka lay naka lay juddoo naka lay kiyee misaal moo wax ko ci arab hadaful muxaawala wa ibrasul atabat al maarifiya wa epistimatu kulli marxala min marahil indaad al maarifiyi lil manzuma al xadimiya xaysu naraa كيف تتكاثف الأفكار وتتوالد الأطر الفكرانية من حيث البنية العرفانية والتوليد للبشر مع لغي دارين خول دارين جس خلاني نمو جدو نمو ديفلوبي dialectique bi am ci ci xalaat yi ci penseur ba kon ma ne rek loolu ngeen nañu am carte météo loolu ولا يمكن قراءة هذه الإحداثية الإبستيمولوجية إلا برد ذلك كله إلى مراحل وعتبات تكشف لنا عن أساطير بنيتها الداخلية وسيرورتها المادية أصل هنا بمعنى الفلسفي معنى لغي غير كارت ميتيو épistémologie bu sëñ bi duñ ko mën a jàngat mooy mooy étape par par étape lu lu lu may ne dañ ko séddale ay ay étape mooy tax ñu ñu catalogue bi leer ci ñoom waaw xam naa kon li ma ci dugg rek mooy dama bëgg yee yitte yi gëstu la waaw xam naa am na lo ak duralul mu karrara ma ne ma ne bëggoon naa gars yi ba ci ba ci xel dural duralal mu karrara dara koy wax ma ne mu karrara fu naa du baamu mooy segg takriir ni ñuy seggee isan mooy réfination réfiné réfiné mu karrara mooy yuñ réfiné du mu karrara bi bi maanaa yuñ baamu takriirul pétrole mooy raffiné ko segg ko ba mu seet waaye du firi di ko baax yaa ngi seetlu sëñ Tuubaa lakkiinam wi ni mu xoromoo doole nag mu karaara day ware doole nag mu karaara xasida gi daal kon da dama ko seggaat waaye moo doon xasida sàngam dama ko bindaat oh mu karaara diggante moom day refiné ne nekkate xasida xoolal sëñ Tuubaa ni mu bindee da dana ñëw sax loola nañ nañ bàyyi ba àgg fa kon léegi état yi nga xam ne ci la sëñ Tuubaa jaar nee naa jombut état bu njëkk bi mooy sëñ bi doon tout tànk ma ko tuddee marxalatu shafafiyal waqaada booba gis bi neex na ndax maxaajunaax yi waxta sabaay waxta si waay la woon ba may ndaw lañ ma faral sa way tooñaange kon moom léegi daa set moom set na jël set set nga xam ne moom kon moom bi mu ganee àdduna ba ba ba muy dem ci daara ji maanaam booba ci bool juróom-ñaari at gën jaa yeex juróom-ñaari at lay doon kon marxala boobu kon jombut gisaguñ ci dara am bind xasida man naam bu amee kon xanaa du du yaatu man naam xanaa mu bind dara ci ay moroom ne ci daara yi di bindandu xanaa ah nga xam ne loolu mille mille trois cent mille deux cent soixante onze lay tàmbali ci gàdday fo foofu it sa sa sëñ Moustapha Jatara wax na lu am solo bi maanaam ci ci taarixal ci arab bi si daaw moom ci ci hijri la la taarixal boppam si Moussa Diatar nee na daa ànd si si laa dem ca ayatullah xaami nii mi mi fi ne siyaare ji ko nee na moom si Moussa Diatar def benn arab ci ci sëñ Touba histoire am exposé ci moom nee na bu noppi xaami nii ne ko waa wax ci arab ne ko lu tax taarixaloo ko ci hijri te nga ne moom ab sawri la ab révolutionnaire la am solo. Sëñ Tuubaa mi ngi mi ngi taarixal boppam ci hijri waaw kon léegi ko ko kon léegi mille trois cent soixante onze ba mille deux cent soixante onze ba mille deux cent soixante dix sept kon day mel ne kon mooy mooy étape bu njëkk bi étape bi ci topp mooy marxatul jamax yi wa taxsiir ashabul yàgg loolu daal waxee maane la moo gën a gudd ndax day dem mille deux cent soixante dix sept boobu ba ca 1300 suñ baa ngi ci jàng ak jàngale ak dajale xam-xamu jamono trois cent asri yi min luxa wa fiq wa usul wa tasawuf wa mantiq ba noppi it nag ci la xamee ci la ci la dundu taarixum réewam boobu seen xutu yi boobaak Maba Jaxu Ahmadu Seexu ba ca Lat Joor Alburi Njaay ñu ngi ko waxaat di buur si ko mën a daal waa histoire Sénégal booba mi yëngu booba booba melut ni moom dal gi mu dal xam ne jàmm ji yàlla sax waaw suñu bi nag ci la sóoboo yoonu mag ña mboorom gaay wër réew mi Sénégal Guinée ak réewin gànnaar ci la it daal di daal di daal di bind yaxal tasawuf al irfan irfan bu ñu ko waxee nag mooy xam-xam bi tasawuf mooy taarix bi kon wax naa ko farax kon tasawuf wa taarix wal irfan wal maarifa waaw al maarifa al mutawallida min al tasawuf tasawuf bi kon kon ñaari baat yi kon bokkul irfan ak gën a fort yu xam nga sawti ak sunna wal jamaa sëñ bi daal di koy bindee ci ñu nga waxaati ahlu sunna wal jamaa ab kii rek la ab lan la ab parti politique la wal jamaa ji maanaam ahlu sunna wal jamaa ñooy parti Muawiya Usmaan radiyallaahu taala anhu ku bari xorom la waaye mu ne su ko dàq de boo ko dàqee kaana min min min katabatil wax yi kon noo koy def waaw wal jamaa ji moom si si dal xasan maanaam léegi bàyyee Muawiya nguur ga ci lañu wax waaj wajamaa fi dool loolu dara moom du du- du dara de du dara moom maanaam maanaam am su suñu wajamaa te du dara moom du dara waaw maanaam léegi Muawiya daa muus ndax dafa am i cadre yu ko wër ñoom ñooy xam nañ lu nuñ mën a utiliser yëf yi oh du dara de ahlu sunna foo dem ñooñu ahlu sunna lañ chiyan ahlu sunna lañ murjiyaan noonu xaw ma nangam xawaar yi ñëpp ahlu sunna lañ ban ban- ban ban sunna ku ne dana ne sama sunna mooy sunna ci ngeen di wax islam ndax wér na kooku problème la waaw da gone yi laa bëgg ñu ñu ñu ñu ba xel baat yi du dara ahlu sunna wal jamaa du dara de du dara moom waaw mi mi ngi mel ne nga ne parti réew mi parti réew mi xaw diw xaw ma xaw ma gën a ko moo ko yor xaw ma parti réew mi ah Idriss Seck ñax ñàkk cee bokk da- dana tee bokk ci réew mi kon ahlu sunna wal jamaa ma nga cee bañ a bokk ba noppi bokk ci ahlu sunna al muhammadi sharifa waaw waaw loolu it gone yi mën naa am dana leen réer mais kon fii kon am na ay téere yu yu fi feeñ lu mel ne mu lay rusu dóor mu lay rusu dóor si si wusu dafa wax lu am solo ay waay xalifa seen séral di murid de ay waay su ko teree woon ne buñ ko jàngati borom da koo folli du indi mu lay rusu dóor léegi ama dëkk si siin maanaam léegi ca njëriñ léegi mu mu mën a suur suñ suñ bi nee na suñ bi daa fekk ñu laaxibat bi ay gënu saax da dañ jeefoo dugal ci lu ci bopp dégg nga sax sukkaanu araab naan doomi njaalo nangam déedéet doomi njaalo amul bakkar wala te si wasi wasi wasi wasi oxra bakkar kenn du ko doon te waaw kon kon moom doomi njaalo ñëppee doomu jaaw daal leen problème la am mooy société bi ñoom ñoo ko lankal du mat ilimaan ci ñoom du mat seere ci ñoom kooku moom société bi la islam moom xamut loolu ñaari waajur yi kay la la lañu la ñuy soow société bi nanguwuñ ko njaaloo boo njaaloo ba def bi nanguwuñ nga takk nga takk doom mañ moo noor yi nii ñëw na mañ moo noor yi nii kooku it mën naa taxawlu sëñ bi booba booba mi mi ngi dajalee booba trois jamono la ca nekk nag du ne sëñ bi mu mooy wax waxut de jamonoom mooy wax kooku it gëstukat yu ndaw yi ñu ñu bëgg xel man man man ñu man ñu ma woon yi sëñ sëñ Saab sëñ sëñ Basiru mas na ma ko wax ne ma wax na daal xool téere yi si sëñ bi bind bi mu doonagul sëñ bi ak bi mu doonee sëñ bi kon moom Safinatoul Amaan moom it waxut Cheikh Abdou Khadre Jilaani wax waaw waaw waaye daal xam nga ginnaaw daa bëgg a nekk mu jëndit faaw mu nekk mu xaafis nangu leen gars yi mu mi day baax na loolu de waaw ñu ne ko waaw est-ce que kay sëñ bi danga koo sol ay diir ah waaw xanaa mu ne daa mel ne pàgg nañu ko waaw ah fi mu jaar kay si sori na mu ne waaw ko kon kay teñ koo nag nan ah gupp am na sax leen gën a woyof rocci rocci mooy dugg ci ndox bi daal di génne ndax gupp sax day mel ne da daa taq rocci nag mooy lu lu lu pàgg wolof wolof looy wax de rocci gupp ak fóol bokkuñu kon kon mu neen am nañ ko rocc kon léegi sikkul ji waxee ba tey gis nga ko sëñ bi waxut jamono may wax jamono xasida sindiidi sindiidi moom it fekkoon na ko fi ñaan ya ba ca xaadir ya am na ci ñaan boo xam ne xisbu boo xam ne am na ci leer na ci tuuti nag am nañu wax naan suñu bakka bi dumaan naan dara wax naan kat ñaan la goo xam ne soxna aswaale ko daay ñaane déedéet war naa ko ne ko déedéet tuuti la ci tuuti tuuti moo ñëw ca xisbu ko maahibul xuddus moom it sëñ bi waxut am na sax fu mu naan indép ti ti tiddaay sëyri ba may soog a jóg laa ko def kon moom mba mbaa xuddus sëñ bi waxut de jamono may wax jamonoom turaas jamonoom loolu lu am solo la mooy xudus it du tawxiid ilmul kalaam la théologie mooy nu ñuy layale pas-pas yi lay jàngale jàngale wu tawxiid de kooku it lu am solo la gone yi xam naa waaw daanaka fi ñu toll mooy xudus moom nee naa moom teg ko ci miise ba la la war a tolloo trois la ndax moom jamono moom jamono jéggi na ko théologie mook science ñun ñooy ànd parallèle te science jéggi na ba misaal rek misaal rek al ilmul ilaahi yi ñoom niñ koy waxee rek mooy inkisaafun tàmm li lil maxluq kooku ku ne xam ne ne adduna jéggi na ko inkisaaf wuññi ko bu ne xam ku ne xam ne ne moom wuññi ko mooy dafa nëbbu woon boobu sax du du science bi bi science mooy alanrado laa yi doomu sama nee ni alanrat lu loo xam ne accidentellement lay am reeg wax ak nangam ñoom dañ dañ ne woon yàlla du ko dekkal ëllëg du ko bind seen appareil yi léegi mun mënut a enregistré kon loolu xam nga tub naa dépassé na ko du weddi ko de dépassé na ko maanaam léegi théologie gone yi koy jàng nañ nañ xam ne du xam-xam bu sax ilmul kalaam saxut de jamono ju ne daal gars yi danañ góorgóorlu ittihaad lu ñuy layale seeni pas-pas su ëllëgee technologie yan naanoo juddu na yaakaar naa fu mu fekk nag ilmul kalaam bu démb ba da koy faral yooyu yooyu nag gone yi neen nañ xam loolu ilmul kalaam moom wax dëgg yàlla ma ma ma nañoo jàng moo ma wax lu xudóos ngir xam démb mag ñi ban horizon lañ doon xalaate daal di xam ne kat nun kat kon dépassé nañ leen loolu nag xam naa ba tey kon kiigul waaw loolu loolu moom daa mel ne xaar yëpp defe naa daa mel ne loolu moom ëggaguñ foofu nañ waaw waaw loolu loolu loolu yi nag lu am solo la jamono jamono ji it mën naa am ñu fekk fa xëcc goo xam ne ci la sëñ bi tagge woon sëñ Mor Anta Sali Baye am na fi am na fa lu lu fa wax ayaa man baal ahkaami yaa xawu sa dilliili ayaa xarmu yaa naamusu yaa xutba dal jiili ah si si sëñ Bakam Doma wax naa ma xutbu ji dana xutbu la da nga déedéet xutbu la ci xam-xam lay wax kon ko kon ko kon kii moom du xut boobu ci tasawuf xut bu ci xam-xam la waaw ah ka nekk bu Vatican du xut ba la de wala ca nasraani xut bu la Paul mooy xut bu waaye nag du ci batin ci ab dayoo la ci seen grade yi kon fii kon yaa xut ba dal jii li du firi kon xut bu sama nag xut bu nangam waaw loolu lépp yi nag interprété interprétation yi gone yi buñ di xam nga nuñ liñ xam nuñ ci suñ njàngin wi dafa am njuumte daara yu jëkk ya mag ña firi baat par baat jumla mufiida la ñuy firi dara ba nga ne oh dóor la kay xamu ko kum dóor nga ne góor a mu ne oh góor a ko dóor de dangaa xam kum dóor am xaram la dóoram ginaar la dóoram am ndil dóor kon jumla mu fii da bi bu amul li ngay jàng doo ko xam daara yi ñoom duñ jàng dañuy wax par baat dara ba dóor na góor a góor a alximaara baab kooku yow foofu taxawee rek kii diglu xamut li ngay wax kon moo tax kon foofu it kon maanaam kon da daara yi xam naa ñoom xam-xam yu yu yu bees yi ñoom war naa dugg ci daara yi nag seen audition gàtt na de xat na xat na xat na xat na léegi état bu ñetteel bi mooy taxriixul manhaj yi mi trois cent ba mi trois cent un sëñ Tuubaa mi ngi ci vérification méthodique luy lii lii ma fekk baax sama bàyyi nekkoon ca lu mu doon dund naa ko waaye ndax am naa résultat dëgg boo xam ne kenn duma ko wax maa koy xamal sama bopp kon kon moom taxriixul manhaj yi vérification méthodique lu am solo la yaakaar naa nettali woon naa ne nekk naa keer achakul manhaj yi dun méthodique laa doon wax sëñ Tuubaa wax naa ko sa salaam ne ko sax na waaw maa ngi koy bind de ñëw fi moom këram keer mu ne ma waaw man sax day maa ngi doon man waxuma loolu man li nga wax mooy achakul manhaj bi lay wax waaw ndax xam naa moo kii daal xam naa sax ginnaaw bi nañ sax daa mel ne dikk na ci sakku mën a ji waaye man man fekk ginnaaw bi waaw am njaga njaay la laa dugg jóge njaareem jëm Tuubaa ci porte Tuubaa bi noonu santam bi xamul ci arrêté oto bi booba tusbaar te nga jël mbóoya ma mu mel ne daa am lu ne ma Moustapha Ka yow da nga doon jàngat sëñ Bamba ci xasaal yi te nga koo laaj bokk ci saasa ma booba ma maa ngi yor asandaa yor yorub bii moom ma daal di ma daal di ko ci laa bindee lii huwa wad'u maqulaati al-aqdi al-mujarrad wa muhassalaatihi al-awliya ala mahakki al-aqli al-mustafa amalan fi buluuqi al-wusli li wahyi al-haqiqati mutlaq maanaam daal kon vérification méthodique mooy li xel mi xamoon ci li li mu jële woon ci bitti ak yi nga xam ne moom da da da koo judduwaale mu teg ko ci xel mi nga xam ne dañ koy daal aqlu mustafa lu mu ci jublu daa bëgg a xam dëgg-dëgg conscient ci la vérité absolue xam ko dëgg waaw ma ne wala wadon badihiyatil aqlil xaalis ala mahaki tadarjatil aqlil amali asaba tajribati wa saa mbind mi nag daa xoo moo doole bu ma ne al aqlu xaalis demal ca Kant bind na ci téere téere bu metti wala al alaqul amali dama ca kant dina jëb téere téere bu metti kon léegi noo koy firi kant rek nañ ci sonne moom ci ñaari baat yooyu waaw moo tax ku may liiral daa war na fekk nga liir yooyu kon kon la yomb ci yow yomb ci ma nit mi ne ko bëgg a wax mi ne ko bëgg a jox kon léegi ma ne kon ak vérification médiatique bi ci Sëñ Tuubaa mi ngi amee ci jamono yi yi muy wër war na dem dem na ba Guinée Guinée Guinée Bissau wala xuma Conakry mooy fa Conakry yaakaar naa de mooy bi bi am bi wala Bissau mooy bi mooy bi am Touba nee naa fi maam an fi ñang nee na nee na sëñ bi foofa la yees la war xaatir yi robaa xasidaam googu alxadir yu wér daa ox atuba yul xadir yu wér daa ma ne mën naa am foofa kon la waaw ndax moom faw moom a doon ko moom wa illa kon maanaam léegi li ñuy def lépp day daal di mag moom kon moom amuñu ko noonu moom amuñu waaw ma ne ma ne kon foofu foofu fu kon fi la fi fi la loolu juddoo kon nag kon nag foofu moom mën naa am ay kii yu bare bare yu fi xew 1301 bépp ci bi daal di am dog-dog am diggante si Tuubaa ak démb 1301 1301 suñu soxla nee na ma juróom-ñeenti weer la def gànnaar wër bi ba de ba gànnaar bi nangam ba ñëw juróom-ñeenti weer la ci la nag 1301 ñëw mu daal di woote nga xam ne booba da nga gis ne kat am na bis suba gu yees pekk mi mi ngi ñëw. fil fikri al ifriqi islami yi ci pensée bi nga xam ne moo juddoo ci Afrique pensée islamique te mooy benn woote boo xam ne réformement la day baaxal day jagal bu yees ñu di ko wootee ci al muridi muridi nag nee naa man xam ne naa ko ne mooy daawa mooy mooy doo tax ma suuf yële nan laa ci amee waay ah xarakatun wa kay waa ji moom mu ko bi dara métti moom xarakatun suufiyatun tajdiidiyatun caa mouvement la doo tax ma ne mouvement te waxuma tariixa tariixa day tënku ci benn werd noonu man yor naa xaadiriya yor naa saasiriya yor naa tijaaniya yor maaxuus ba noppi am ci digalul jëfi nga joxe bi tijaan bi bu jëlee leneen jublu ci tëbbu duutu day dog ca tarixa ba man ngaa jël nag tey maaxuus imaamu abdourahman si joxe naa ko maaxuus daaw fii ko boobaa da da koy barkeeloo bu ci tëbbu rek kon léegi murit lay doon duutu doon tijaan noonu nag da dafay mën tëbboo bu ne fan ba jasat mi mi minu si nata achata yi naan bët bu la neex nga naan jóge fa naan naan ci benn boo noppee wenn doju wenn ko kon sëñ bi kon léegi li mu woote kon moom léegi duudu tariqa waaye xaraka la foofu it lu am solo gone yi tariqa su ko su suufee ak tuddee waxuma waxuma nag ni ko mbedd mi waxee tariqa bil maanaal al irfani mooy méthodologie mooy mooy yoon wuñ lay jaarale ba nga am yàlla ak tariqatu wala ak tariqu dox dina yàlla ak tariqu wóolu wér jublu ci rek li la yóbbu ci ci yàlla loola mooy ak tariqu kon ko ko kon léegi tariixa kon léegi du firi nii compris xaw ma ni nga wax France compris la du firiwul loolu de li muy firi ñu ne dëgg dëgg mooy méthodologie méthode méthode kee méthode kee wuute méthode yi wuute waaye benn dëkk lañ jëm yoon ñu koy jaaree moo wuute loolu loolu yi ñu tuddee tariixa ci tasawuf dëgg dëgg dëgg la kon foofu si Sëñ Tuubaa feeñal na fi ay ay diiwaan yu yu bari yoo xam ne may diwaanul muridiin metti na nag tool diwaanul muridina fi dool raaya danay min xaala wax raaya ab ab ab sëq la ca biir diwaan bi diwaan bi anamoo ñi ko yor du ñu ko génneel jox ñu ko raaya ab jusu la ca téere ba anamu ko mel ne xalifa si àll murid sama Muntaxa yàlla ko yàlla dolli tawfeex boo waxoon rakkam yi dina waaye lu waaye am ci ay kàggu nañu ko génneel ñoo escalier ko rek kenn du ko laal waaw xam naa loolu ma debal foofu si nii nga xam ne moom mooy utopia alxadimia maanaam ci ku mel ne man waaw wala madinatul insaan alkaamil fi fi doon loolu gone war na ci biir tees madinatul insaan alkaamil la si xadim maanaam léegi nit ku mat sëkk ban dëkk lay dëkk loolu it kilifa it war dañ koo baaxeel Tuubaa kon léegi dañ ko war a def noo xam ne ku bëgg a baax boo ko demee baax sëñ bi da ko da koo sañcoon ne daa bëgg mu nekk dëkk ku ku bëgg a baax nit ku mat sëkk wax ma ko bëgg a baax de maa joom ku mat sëkk ku baax tigi dëkk boo xam ne boo fa duggee sa mbir du xajam mooy mooy ma desul insaan kaamil ay waay foofu foofu ma doon xam-xam ak lu ne lépp loo bëgg a xam boo bëggee gàggantiku boo bëggee nangam lépp da ngay fekk loola bëgg a si ne fa oh waaye si si si si Muntaxa nee woon na xanaa nee woon na fan xum ak Najaful Ashraf nee na ñooy ñooy nawleeb Tuubaa mu ne Madina du nawleeb lu am solo wax xam-xam xam-xam bi xam-xam bi. madina xam-xam néew ko mu toll bari di ma fa barke bari na waaye nag du xam-xam mu ne mu ne ñee ñooy nawleem mu ne waaye nag fekk xanaa ñetti téeméer at oh xam nga sëñ mu tax missionnaire la li li li métti ci waxam ji mooy xam na ne nun ñu ko digg ñëpp te kenn du ko fekk ñetti téeméer at lu si mu tax a bëgg foofu mënul foofu seen i mën a jot ay waay ma ne kon nag ci étape boobu am na fa ñaari téere masalikul jinaan maxalikul niraan masalikul jinaan nee ñu bi mu koy bind la koy jàngal sëñ Mbàkke Buso bu mu ci lu mu ci jàng lu mu ci bind tëralal ko foofu it gone yi lu am solo masalik gone boo ko jàng doo mën a dem ci marché ba de seetal sëñ sëñ Mbàkke Buso bi bi mu ko jàngal booba kaana mufassiran lil Qur'an kàngam la maanaam agrégation ci ci la toll bëgg a sóobu sëñ bi sóob ko ci masaay sëñ Abiyu Mbàkke Limaan sëñ Daara sama mag nee na laaj na ko ko mu ne ko masaay ligi mooy li sëñ bi nekkoon bëggoon ku ca ne koo kon sëñ bi boo nee koo jàng doo dem marché boo demee doo doo fa tekki dara moom waaw léegi ba ca topp mooy maxaali ko niraan wax nañ ne jàngal na ko sëñ Mouhamadul Kabir Mbay mooy bàyyi sëñ Galo Mbay ca Mbàkke Bawol kon ña ñaar yëpp Mbàkke Bawol lay wax ne fa la ko tari boo demee Mbàkke Bawol ca Mbusoobe njàkk si njàkk joojee am na ci soow garab gu fa ne nee ñu foofu la suñu tubaab taalibi woon c'est-à-dire ci xalwatu nga xam ne kon day ñuroog xasaali ca Ihya xalwal la ko bindee woon ca jaamia al amawi ca ca Syrie bu ci topp mooy ma ma marxal tajdid mooy cinquième étape bi te mooy alxitma ci marxale bi te dañ gis ne benn benn époque bu bees jamono ju bees juddu na ci systématique gu xaatim sëñ Tuubaa yi ndax léegi sëñ Tuubaa génn na ci taqalid to toppe bil maanaam généalogie la ak sawri yi maanaam daal daa dog ci toppe ba mu jatak moom mu daal di woote ne day yeesal nga dégg mu naan salirtu abidan xadiman li rasul min ami ay seen ila ami rahim léegi man yonent bi alayhi salaam mooy sama référence léegi mu jeex foofu andi na fi ay dawaa yi ñu yu yees yoo xam ne day xalaatin wu yees lay wane nga xamante ne te yeesal ba mooy nee na mooy xidma xidma xidma nag waxtaan nañ ko moom ba tey léegi masa tëj jiit sëñ Tuubaa yeesal gum gum yeesal nan la nan la fësloo ci ci moom sëñ Tuubaa lim jëkk a def yeesal mooy ne baatub tëj jiit maanaam léegi da koo da koo jàngataat diinu si waa islaamihi laa yuhmadu inda ilaahi wa bihi nu jaddidu dane moom kat ci diine laa yeesale xel yi waaye diine kenn du ko yeesal wa bihi la wax wa bihi wa bil islaami la ñuy yeesale xel yi nit ñi bañ bom dëppoo ak ak ba xëy dëppoo ak diine xanaa conscience collective moo moo tax ma ne Sëñ Tuubaa kon dafa mel ni kon yeesal nee na mbooloo ñu ñoo koy def procès collectif la waaye du ay individu ñoo koy def individu yi ma nañ ko def bu ñu bu ñu dajaloo maanaam léegi yeesal bi daal daal di mat yeesal na fi ilmu kalaam mooy théologie waaw moo xaaj ko ñaari xaaj bii mooy tawxiidul kalaam yi te mooy théologie bi mooy tawxiidul irfaan yi te mooy tasawuf waaw mu daal di wax ne wa baxdu fa tawxiidu li xismay ni mun xismun fasaara tawxiiday nii fa awul takalumun wa thaani taarufun laa tumkin qiyaani kon kon foofu ma ne kon yeesal la gu rëy ndax séddale leen tawxiid léegi ne kat bii moom xaaj bii moom day day wax nu muy layale pas-pas yi bii nag moom dund ko la pas-pas yi bu demee ci masalul istiwaa yàlla ala istawa sëñ bi moom daal na koy daal di tëj tëj buntu ba daal di nekkat yaa man ala kulli shay'in qaadirun wa ala arshil asiim istawa bi xëy yàlla istawa boobu li ñu firi mooy xëhër yàlla moo noot moo noot arsh ba mu ne rugg ne ne dekk mu jeex waaw kon ila istawa bil maanaa laahuuti huwa al qahriyatul mutlaqa lillahi jalla wa ala moom daal na koy leeral état bu juróom-benneel bi mooy marxatu al ini intaafal li xidmati nabi sallallahu alayhi wasallam côté di diine 1313 mi mi 1313 nag ci la sëñ bi jóg nag moom ngir bëgg nag wanee nag projet bi la dëgg-dëgg mu ne waa sera xidmataha ma jiy sasi waxal bubu add maraha mi assisi kon léegi projet bi assasi la ko naan 1301 ci gàddaay gi waaye ci 1313 nag ci la ko wane nag jëmmirlu ko léegi nag projet boobu nag diisaay bi yóbbu na ko ci mu ne man sakk fi dalika fal yu jarri bi booba yu jarri ba ba ba bi taxaru bi ku sikk sàkk ci li ma def seet isee ko ba xam daal kooku isee dees na la yóbbu ci àll bi waaw kon kat position yu yu rëy kon la waaw position yoo xam ne képp koo xam ne da ngaa jàmmarloog intérêt yi nit ñi boo yeexee da nga dugg ci ah maanaam nag lu méttee métti ma ne fii nag sëñ bi génneel nañu fi Muxaddamatul Xidma boobu nag xam naa moom de dese nañu ko jàngat ba tey xam naa moom yàlla naa am jot gàtt kii ba sëñ Tuubaa xidma la lu mu bëgg a wax tur yooyu nga xam ne salaay salaama nu mu tudd ca diine sàngam ci téere sàngam lu mu ci jublu foofu foofu foofu waris na koo jàngat ba xam daal maasa maasa muusa muusa faraqal yi tag baraqal yi tag tàngam lu tax mu indi yooyu lan la loolu loolu loolu misaal tey amoon na benn waxtaan oustaz Cheikh lay jiir bokkoon ko ak benn labbe sec ak benn oustaz bu dëkk xaw man soil faju ci ci diine jamono Sidy Lamine Niass waa ji Sidy Lamine Niass laaj ko ne ko oustaz ba ne ko kat maanaam léegi turu Seydina Issa ñu ñëwoon na ci alquran léegi ñëw na ci injil labbe sec ne ne ko ne ko ban la am na nu ko waxee en partie en partie ci turam boo waxee woon ci lemees ne ko loolu ndax wér na mu ne ko mu ne ko déet loolu amu ci su sa sabla ji daal di daal di ne ko ñë ñëw na ci mooy faaraq liit ak baaraq liit moo moo wax dëgg xet ba si sëñ bi indi na ko ca ginnaaw léegi phonétique bi phonétique bu baat bi mooy par paractolos laa te périclitos ah périclitos périclitos xam nga xam nga xam nga pàgg pig pigoogu arab um ko sëñ bi indi ko baaraqaliit ak ak faaraqaliit fag yi fa ps gi moo moo ko gën a jege wala boog baaga ci la ñu daal ne labbe sekk loo loolu moom ndax wér na mu ne ko waaw wér na ko foofu rek oustaz Sidy Lamine Niass waay rahimahullah jàmbaar la waaye diine jamono booba ah bañ ko waree tegaat maa ngi ko yàqamti woon ndax ndax ndax maraat ko bëgg ko diglu da ko dagg waxi chef la ji it da ko dagg waaw xam nga loolu it loolu it loolu it xam naa xam naa daal xam naa daa fiir ndax boobu moom sëñ bi dafay jàll moom jàll bu am solo waaw ndax chef la ji ma ma maa ko waaw lii nag moom arifine bi lay ñoo xam xam naa loolu xam naa jumbut rahimahullah rahimahullah ñoom ñëpp ña nga barsax yàlla ña ngi kon kon mu xadamal xidma moom lu ci war a jàngat la lan gannaaw mooy mu xadamal xidma bi xidma bi ci la tàmbalee lan la bëgg a wax ba ci marxala ñaareel bi juróom-ñaareel bi mooy marxalu shuhudi wala ayaan 1313 ba ba 1400 ba 1343 yéeg si seen ba jëm si fii nag ci la si duwaay nag yéeg yéeg yéeg bu kawe nag ba nga xam ne ci la mën a communiquer dëgg ak sala sala ci la alxaqiqatul muhammadi sharifa maanaa léegi sotti ko ci jë jëmmam ju sell ja ci lañ si duwaay nag wa- wane ay daaw yu ni mag loolu mel ne alfulkul mashhun wala masnu min addikri almasnu waaw ak yeneen ak yeneen ci marxale bii nag da danañ fekk baat yi soppaliku ay concept mooy soppaliku ay ay ay ay concept kooku nag kon jàngkat yi kon war nañoo baxee loolu suñ tubaa léegi ci marxale bii moom 313 ba 1343 moom ci gàddaay gi léegi waxee tut ci ay baat waaye ci ay concept lay waxee yoo xam ne nag day rafet loolu daal bari loolu ay maanaam duñ ko fekk sax ci bindkat yi yeesalkat yu yu mag yi am kon foofu kon moom bu mën a jàngatal la waaye nag day day fekk gaa bi bagage problème bi nag mooy suñ su jànkat yi ñoom dañoo amuti bagage ah wala boo bëriwul maanaam ba bagage yi luxa rek balaa ba nangam am kooku moom kooku moom mooy piste bu njëkk bi texte bi moom faaw nga di di dàng naxu balaa xam nga waaye nag kooku dafa dafa dafa tuuti waaw kooku moom kooku moom kuy ijji ku firi ijji laaj kooku daal daa firi ijji waaye nag jàngagut moom. ma xatul jiwaar mooy xadatul farq fi ma xamil jàmm loolu maa ko maa ko définir noonu maa ko conceptualisé noonu. maa ngi jiwaar la maa ko constitutionnalisé dina xasatul farq fi ma xaamil jàmm ne jaar la ba noppi te lépp daje fi yow sëñ bi sëñ bi foofu kon moom foofu kon moom daan daa sóobu ba fitti mooy mooy xadratul farqi fi maqaamil jamaay sëñ bi mi mi ngi koo taarixale ci jaawaleen jamilu ama jëm sa si ilaa ji jinaani bi xarit wala si mille trois cent quarante trois ci laa dëkkal ak yàlla loolu firi ne ko jaawatulaa kira bi dëkkaale leen yàlla ci dund alxuraan kon ma ne foofu nag ci la si doon théoriser as-suluk al-quraaniya ñun sóobu jëm ci yàlla jare ko ci alxuraan rek ci ci xasidaam koo xam ne moom ñu bari ci noonu ba tey jàngatuguñ ko mu jawartullah bi tamit ilaa di ko jël taw lu loolu téere boobu mooy ni xaytul mataaf sëñ Tuubaa ci mujj la ko bind tënk ci ab dox dox dox ku bëgg a dund yàlla ci jare ko ci alxuraan képp loolu lu am solo la waaw loolu lu am solo la kon bu ñu defee feedback dañ naan kon day aajo woon nañ ñu ñu taarixal concept yi sëñ Tuubaa yi lu mel ne xidma al siraaj al daw al nuur al tanwiir al ishraaq al ixtiraab fayd ak maariba maanaam lu ci nekk ñu xam kañ la ko def kañ la rot ci mbindam ak yan circonstance moo tax mu mu dikk nan la juddoo taariixu durar al mukarrara waaw ak ak dural mu karara ñoom it ñu taarixal ko xasida yi kañ la tàmbalee ñu ñu di ko takrir ñu di ko raffiné waaw ji jéem a xool ba lan la mooy lan mooy signification mystique bi lu tax sëñ bi jël xasida di ko bindaat tuddi ko dural wurusu géej la boo xam ne dañ ko raffiné lu tax taarixal sëñ Tuubaa fi mu tàmbalee di jëfandikoo lu lu baabul alquran maanaam léegi alquran ay yi nga xam ne moo gën a ñor salik bi war ko soxla woo loolu imam xasay bind ci ab téere di ko lu baabul alquran Sëñ Tuubaa kañ la tàmbalee def loolu waaw nee naa bu bu dee tatris mooy tatris mooy taarale ak aaya xasida mën naa mi mi ngi ko jëkk a tàmbalee ca masaalik bi muy jeexal ca tarjumaan ja naan tabarkaana yar ñu di xaar bi wala ya'mal amalan saalihan wala yushrik bi ibaadati rabbihi ahada ma ne nag aay boobu boo seetloo moo tënk téere bu masaalik loolu it borom xam-xam yi us ko di war nañ ci jéem a yëngu ba xam daal taarixal mufradu annonce bu bu wax lu shuhur kañ la feeñ ci mbirum si diwaan boobu annonce waaw wax na si woon dégg nga mu naan fa fa kullu man raa ci wallaahi al ahad fii ay cheyin fa huwa murtadun jahar bay boobu dafa mel ne kii la yatim la da koo wax noonu la képp ku gis yàlla mii kenn ku gis loolu yàlla mii kenn ci dara jone koo ko génn ci diine luy loolu cheikh sa sëriñ ba Cheikh Amadou bin Ismu jaaxal na ko da ko jaaxal dafa jàppale sëñ bi booba dafa tàññaane xam nga xam nga waxaat na ko ca jeg sësin waxaat na ko ca wakaana xaqan wala si lam ara xayrahu wara arahu fi siin xadaa wana wala mais loolu wisaal lay firi bi du tàññañal de wisaal la waxdu du shuhud wisaal lay jur mooy ngay dox te duutoo taxaw wusul mooy nga dox ba ba ca dëkk ba dem ba ca pale ba ñu ne pale baa ngi nii wisaal nag mooy ngay duggal ji ci biir di wéy ñu ne pale bi amatu ab yomukaay loolu mooy wisaal ma ne kon ci tënk na kon doon nañ jéem a qualifier sëñ Tuubaa ay mbindam ngir bëgg a xam ci ban xusul maanaam marxala bu ne époque bu nekk ban jagle la am jàppe ne marxala bu ne wala étape bu ne étape ba koy ba ca topp une étape maarifi la déviation cognitive la étape bu nekk ab tournal tour ab tournal sëñ bi dafa tourné loolu nag kon mbir la mu am solo ci gëstukat yi étape bu nekk étape bay ñëw day mel ne da koy jéggi da koy dépassé kon léegi yow soo dee jàngat Sëñ Tuubaa ci étape sàngam te bàyyi woo xel ne étape boobu boobu maanaam léegi folli na bu bu bu jëkk ba yow kon dégg ko li sëñ bi wax kon bëgg naa daal ñu ñu ñu ñu góorgóorlu ci ma ma ne bu dul loolu gone yi danañu wéer ci mbindam si si si tuwaan mooy mooy mbindam yi nga xam ne mystique la ak yi nga xam ne école ci ci daara la la lay lay jëm lu mel ne Masalik ak nangam nangam du na ak moo wax bu ko def kon léegi duñ mën a gis Sëñ Tuubaa gis bu leer boo xam ne da personnalité bi sëñ bi dëgg la ñu mën a jël xam kon lu may ne day la dañoo def nii kon de loolu mën ne nee naa jombut jombut kon xaydu min min min fayda la am naq la ci géej kon xale boobu di Modou Faye jàmbaar am na solo lool di ko almaxtaab almanhajiya ila certificat la xadim yi wa tatawuri loolu lu am solo donte ne am na problème am na problème ci lu mënta jël yi xam naa moo tax moo taxaw ba jàmbaar sama
personnalité sëriñ bi ni ñuy nëbbatoo ci état bi nga xam ne sëriñ bi dund na ko te benn bu ne bu ñëwee day mel ni déviation cognitive lay doon day mel ni dalay làq beneen bi ba tax maanaam li nga waree gisee sëriñ bi ci image bu complet day day des loolu nag pour mu pour ñu mën koo reconstituer maanaam li ñu naan reconstituer waat image bi mooy image bi nga xam ne mooy image réelle sëriñ bi te image boobu bi ñuy génnee sëriñ bi image boobu moo war a dem faw maanaam ñu considérer waat étape yëpp étape bu ne ñu xam frontières yi fa mu dox bu ko defee du ñuy jàngat bañ a gé bañ a empiété maanaam bañ a jog joggante waaw bañ a jaxasoo kon loolu xam naa mooy doon li may li may tënkee commentaire bi bu ko defee duñ jullee ba noppi ñu ñëw ci laaj yi